mbokk internet di ziar naa leen mbaa yéen a ngi am jàmm tey ma indilati leen histoire bu doyati tiwar ma ne ko ca cey Sénégal Sénégal daal façon histoire bu nekk ngay dégg mais nag yàlla baax na yàlla nañu yàlla dolli sutura lii benn waay la waa ji nee na moom yàlla dafa def mu am soxnaam mais nag nee na soxna si dafa am ñaari xarit benn xarit bi mi ngi liggéeyee ci benn banque beneen xarit bi nag moom businessman la mais it yàlla may na ko teraanga ci business bi muy def nee na moom nag yàlla def mu doon liggéeyee ci benn entreprise mais nag entreprise bi mu doon liggéeyee sous contrat la nekkoon nee na contrat trois ans nee na yàlla def bi mu nekkee sous contrat muy liggéey mais nag moom mi ngi doon liggéeyee à Dakar bi muy liggéeyee à Dakar nee na mu dëkk fii benn dëkk fii ci Sénégal nee na yàlla def boo nekkee sous contrat bu fekkee ne entreprise bi mu doon liggéeyee moom looloo fa am bu fekkee ne salaire bi ngay laal ëpp na cent mille francs sa salaire bi dañ koy virer banque nee na nag yàlla def ci banque bi nga xam ne xaritu jabaram ji fa lay liggéeyee ci banque boobu lañ ko doon virer salaire am nee na nag bu buñ ko musaana virer salaire am daawul fayeekoo à Dakar day bàyyi ba dem ci ville bi mu dëkk fii ci senegal nee ville boobu am na banque bi banque boobu sax ci la xaritu jabaram bi di liggéeyee ñu ne bu ko defee foofu lay dem daal di fay retirer li nga xam ne moo di xaalisam ginnaaw buñ ko musaana fay ba pare nee na nag yàlla dafa dogal xaritu jabaram boobu da daan fréquenter këram di seet si jabaram ak seen beneen xarit bi nga xam ne businessman la nee na ñoom ñett nag bu ñu musaana ñëw tase foofu maanaam ñaari xarit yi bu ñu musaana ñëw këram seet si jabaram nee na d'habitude dañ daan nekk ci kër gi di waxtaan nee na nag ku ne xam na waxtaanu jigéen maanaam ay dañuy waxtaan entre ñoom kenn ku ne di wax sa moroom sa secret yi nga xam ne moom ngay sekk sa borom kër eh, ci biir néeg nee na nag d'habitude moom su musaana ñëw fekk soxnaam si ak xaritami di waxtaan ci débat yooyu kenn ku ne di waxtaan sa secret sa biir néeg nee na moom en général da daan daw génn néeg bi ne leen ah yéen daal wax dëgg fa yàlla li ngeen di wax day fatt sama nopp yi xaaral ma génn bu ko defee mu génn ci biti toog foofu moom tux tuxam moo koy gënal fekke seen waxtaan yooyu nga xam ne moom la ñuy waxtaanee saa su ne mu ne comme xam nga jigéen ñi rek bu ñu wéetee kenn ku ci nekk day bëgg a ne sa moroom sama waay maa ngi koy def lii mi ngi may def lii ñu ne d'habitude day génn bàyyi leen fa tellement que wax yooyu la ñuy waxtaanee fépp fu ñu mënti daje ma ne ko nee na ci noonu yàlla def moom mu continuer nag di def li nga xam ne moo di fayee koom yooyu nga xam ne suñ ko musaana fay day xaar ba ñibbi ci ville bu mu dëkk bu ko defee mu doog a retirer li nga xam ne moo di salaire bu fekkee ne dafa ñëw weekend comme mu ñëw vendredi soir samedi matin bu xëyee day dem retirer lii di salaire am passé fa weekend mais nag nee na d'habitude moom weekend yi ndaw soosu di di liggéeyee ci banque bi nekk xaritu soxnaam ak keneen ki moom këram rek la ñuy fréquenter à chaque fois bu ñu nekkee foofu weekend bi nee na ñu dëkkee noonu dëkkee noonu ba benn bis yàlla def contrat bi daal di jeex nee bi contrat bi jeexee moom mu toog liggéeyatul dara nee na nag banque boobu yàlla defoon na dafa ubbi woon compte doon fa épargner nee na nag bi mu toogee amatul salaire ndaxte contrat bi mu amoon trois ans la woon trois ans yi jot na jeex na renouvelé wul contrat bi nee na contrat bi jeex tàkk mu toog deful dara nee na mais yàlla def na amoon na yeneen métier yi nga xam ne da ci doon yëngu ndax nag moom nee na militaire la woon nee na ci boppam métier yeneen yim doon yëngu ginnaaw bi nga xamee ne nekkatu ko yàlla def na doon na defaale lii di métier am garde rapproché jàng na tamit li nga xam ne moo di massage nee na yooyu yëpp daal mu ne yàlla baax na même bu fekkee contrat bi jeex na bu sukkandikoo ci yooyu yàlla mun na ko may mu am fu mu fortaatoo ba keroog muy am ci leneen lu mu jàpp nee am bis nag mu daal nekk ci vilam bi mu dëkk fii ci Sénégal nee na mu ne day dem ci banque boobu dem vérifié li nga xam ne moo di kontam boobu mu doon épargne ñaata moo ci nekk nee na bi mu demee comme ndaw si ndaw am na ndaw su fa nekk te jabaru xaritam la te xaritu jabaram la plutôt en plus lépp loo xam ne tamit soxla woon na ko ci banque bi ndaw si da ko ci daan jàppale vraiment nee na bi mu demee aussi di xool li nekk ci kontam ci ndaw soosu la jubal ndax ndaw si xaritu jabaram la te it day fréquenter këram H24 nee na bi mu demee ndaw si ne ko be yow dama laa gëj gis nga ñëw ci banque bi di retirer xaalis nee na nag ci la expliquer ndaw si ne ko man de sama contrat dafa jeex contrat trois ans laa amoon ci liggéey bi mu jeex looloo tax nga gëj maa gis ma retirer xaalis nee na ndaw si ne ko waa léegi nag nan ngay def te nga nekk borom kër yor soxna ak njaboot nee na mu ne ndaw si ah yàlla baax na ndax nag wax dëgg fa yàlla yàlla am na yeneen métier yu ma mayoon dinaa jéem a xool daal ci nan ak naka la laay jéem a fexe ba daa di yëngu ci loolu nee na ndaw si ne ko waaye yàlla baax na nee na ñoom ñaar ñu daal di fay échanger nee na ci noonu mu daal di dem ñibbi. nee na nag après dafa dellu Dakar nekk foofu di di lijjanti comme habitude ni mu ko waxee rek li nga xam ne moo di garde rapproché bi mu defoon am na ñenn kilifa ñoo xam ne dañ koy woo temps en temps mu leen yóbbu après ñu fay ko. nee na am weekend mu ñibbisiwaat ci vilam bi pour passer weekend ak soxnaam nee na comme d'habitude soxna soosu di liggéeyee ci banque bi ak xaritam bi ñëwaat di fa fréquenter chaque weekend dañ fay ñëw nee na bi ñu ñëwee ñu toog ca kër ga di naan ataaye ñoom ñëpp ñu tase fa di naan ataaye nee na nag benn instant jabaram bi jóg bàyyi fa ki nga xam ne mooy xaritam bi nga xam ne mooy liggéeyee ci banque bi nee na xarit bi ne ko waa yow nii nga toogee nii mbaa yaa ngi déposé ak di jéem a wutaat feneen foo liggéeyee moo gën toog bi di xaar temps en temps am ku la kilifa bu la woo yóbbu la moo gën nee na ci noonu mu ne ko moo yàlla baax na en tout cas maa ngi déposé en même temps aussi maa ngi ciy génn ndànk-ndànk parfois kilifa woo ma ma yóbbu ma yóbbu ko su ma ko yóbbee mu daal di may fay te liñ may fay day mot loo xam ne mun naa cee jël ravitaillement ñaari weer parfois aussi ma am sama yeneeni business yu may def à Dakar maa ngi ciy génn ndànk-ndànk mais nag n'empêche que man maa ngi liggéey ma n'empêche que maa ngi déposer di wutaale yàlla baax na xëy na lu jot daal di yomb nee na ci noonu nag ndaw si daan ne ko waaye yàlla baax na ñu waxtaan échanger comme nag xaritu jabaram la nee na ci noonu weekend boobu daa di jàll nee na moom mu daa di delluwaat Dakar ndax nag fa la nekk di fa dijjanti ay business am liggéeyatul ci entreprise bi nee na bi mu delloo Dakar yàlla def benn weekend ñëwul nee na bi mu ñëwulee xam naa nag sûrement femme bi comme weekend d'habitude day dem ci këram nee na femme bi dem seeti jabaram ak seen beneen xarit bi ñu dem fekk ñu ma fa ñu xam ne sûrement ñëwuma weekend nee na ci noonu nag la ko femme bi daal di yëkkatee téléphone woo ko ne ko diw ndax yaa ngi Dakar nee na mu ne ko waa maa ngi Dakar te nee na xam na ne femme bi xam na ne moom nekkul këram tey ndax ñëwul weekend cette fois si nee na femme bi ne ko man de soo gisee ma wola dafa am sama benn xarit boo xam ne nee na dafa bëgg a dem weekend noppalu ji léegi nag dafa bëggoon nga ñëw yóbbu ko comme garde rapproché bu ko defee nga yóbbu ko mu dem dallu ji nee na ma ne ko waa d'accord nee na mu ne ma sama xarit boobu su ma la booleeg moom dina la fay xaalis bu ko defee nga yóbbu ko comme fan yi jàppoo ci dara nee na ah wax dëgg fa yàlla liggéeyu ma jàppuma ci dara ma daa di accepté ma daa ko amul benn problème su paree rek na ma woo nee na ndaw si ne ma d'accord nee na ma toog ba le soir nee na ndaw si woowaat ma téléphone pour confirmer li mu ne woon daf may booleeg benn xaritam nee na bi ma décroché ndaw si daal di ne ma neexul ba neexul waaye affaire bi du sama benn xarit man mi en personne man maa bëgg a dem dallu ji maa bëgg a làqatu ji dem dallu ji ndax nag eh, kilifa laa te it dafa laaj su ma liggéeyee ba sonn ma am fu ma dem dem làqatu ji noppalu léegi nag bu fekkee mun nga maa yóbbu pour deux jours après man ma fay la nga daal di may yóbbu nee na mu ne ndaw si amul problème ndax man loolu sama liggéey la rek boo ko soxlaa it dama lay yóbbu amul problème nee ndaw si ne ko bis sàngam la dem nee na ba bis ba jotee mu jël ndaw si yóbbu ko nee na ñu ngi demoon ci benn ville noppalukaay fii ci Sénégal maanaam xam nga Sénégal bëri na ay ville yu nit mën a noppaloo nee na ñu daal di fay dem nee na bi ñu demee ndaw si egg daal di jël benn hôtel bi mu jëlee benn hôtel nee na moom mu toog viigo moo ko indi aussi pour garder waale ko nee na mu toog après di ko surveiller waale nee na yàlla def ba ñu añee ba pare ñu daal di wàcc ci piscine bi toog di waxtaan nena na bi ñu wàccee ci piscine bi di waxtaan nag nee na foofu nag la ko ndaw si waxe benn wax boo xam ne wax dëgg fa yàlla wax ji da koo jëlee kaw ma ne ko ca cey nee na ndaw si ni ko de xam naa lan moo tax sa jabar munulaa bàyyi nee na mu ne ndaw si waa léegi sama jabar lan moo tax munumaa bàyyi nee na ndaw si ne ko parce que sa jabar nee na yow li nga yor mot na trente centimètres nee na loolu la ko ndaw si wax nee na ndaw si nee na ko sa jabar à chaque fois bu ñu toogee di waxtaan daf naan ñu yow li nga yor mot na trente centimètres ba pare teg na ci yow di nga nekk quarante minutes ci kawam te doo daanu ngeen baal ma noonu la ma ko waxee. nee na nag bi ko ndaw si waxee loolu affaire bi jaaxal ko trop ndeysaan nee na mu waaru nee na nag wax dëgg fa yàlla situation yu muy dund actuellement nii jabar ji lépp moo ko ko teg ci rëy làmmiñam ak mën a waxam. nee na bi ndaw si bi mu waxee loolu nee na mu ne ndaw si ah sama jabar ji de day tooñ sama kal la xam naa moo tax mu may tooñ wa dëgg fa yàlla daf maa yëpp ndax ma ak moom suñu sant yi ay kal lañu ba tax na du ma may dara fu mu toll daf may tooñ nee na soxna si ne ko ah en tout cas daal loolu la wax nee na daal yor nga loo xam ne mot na trente centimètres en même temps dangay yàgg ci kawam nee na bi ñu waxtaanee ba mu yàgg nee na ndaw si ne ko ba pare teg ci sa soxna si nee na ma yow dangaa mën massage nee na parce que ndaw si no seulement moog jabaram ay xarit lañu mais aussi ñoom ñaar ñoo bokk benn salle de gym bu ñuy entraîner. nee na nag mu ne ndaw si waa dëgg la wax na dëgg de def naa stage massage ak garde rapprochée bi def naa ko parce que nag ancien soldat la nee na ci noonu ndaw si ne ko ah comme defoon nga stage massage dama bëgg ñu yéeg ci kaw nga daal di may maase. nee foofu la ñu jógee ci piscine bi daal di yéeg ci kaw pour mu maase ki nga xam ne moo di soxna si. nee na bi mu koy maase di ko maase di ko maase ba mu waa ndaw si war a wëlbatiku nee na ndaw si ci la defee exprès wëlbatiku ba pare daa di bàyyi serviette bi mu woddoo woon daa di tas nee na wax dëgg fa yàlla nag bi serviette bi tasee moom tamit wax dëgg fa yàlla en tant que góor xelam daa di nekk ci ndaw si nee na ñoom ñaar ñu daa di mujjee def li nga xam ne moo di cukkum njaay ne ko ca eskay nee na biñ ba pare nag nee na ndaw si ne ko ca sa soxna si wax na dëgg man de ba ma juddoo ba tey maa ngi doog a gis lu ni mel ak lu ni toll vraiment lii moo tax sa soxna si même su ngeen amee ay problème du la bàyyi lim ñu doon nettali ci yow yëpp dëgg la nee na nag wax dëgg fa yàlla mu def ko ba pare mais nag mu réccu ko mais nag femme bi moo ko provoqué ndax bi mu koy maase femme bi dafa def exprès daal di tas li nga xam ne moo di servier bi nee na jour boobu biñ ko defee ba pare ba toog fa ñaari fan yiñ fa war a nekk nee na ndaw si daal di yëkkati cent cinquante mille daal di ko koy may ne bi ko ndaw si mayee après mu delloo ndaw si ñibbi nee na moom tamit mu continuer ay activité am nee na ñu dëkkee noonu dëkkee noonu mais nag bi mu ñibbee wax dëgg fa yàlla amoon na problème pour siggi soxnaam xool soxnaam mais nag luy jiit njaag soxnaam mooy njaag ndax nag doon na leen fekk ñoom ñaar ñuy waxtaanee ay waxi néegu sëy mais daawul bàyyi xel da daan génn néeg bi xam naa moment yim daan génn la leen ndaw si doon nettali loolu ñu daal di ko koy wax nee na nag bi mu ñibbee ay fan di ko nëbbu soxnaam bëggul sax soxnaam xam ko parfois tamit femme bi ñëw ci kër gi ànd ak beneen xaritam te sekk nañu loolu ba pare nee na ñu bàyyi ndaw soxnaam si ci biir ñu ngi koy fexe sax di ko nëbbu pour soxna si bañ a soupçonner dara nee na ñu dëkkee noonu dëkkee noonu ba benn jour daal di koy nattu benn doomam feebar moom waa ji nee na bi doomam feebaree nee na nag ci la woowaatee ndaw si daan ne ko man de wax dëgg fa yàlla sama doom dafa feebar te instant bii nii yoruma dërëm bu ma ko fajee ndax nag sama liggéey bi gis nga damay fortaatu nee na ndaw si ne ko amul benn problème instant bi man dinaa la may trente mille nga yóbbu ko hôpital pour l'instant nee na ci la ko ndaw si expliqué ne ko man mi sax ngay gis dama am ak sama jëkkër problème dañoo divorcé ba fi mu ne yóbbu na ma tribunal gagné na lii di procès bi ba sama doom yi sax jël na leen yóbbu leen actuellement nii man rek maa nekk. nee na bi ko ndaw si mayee trente mille nag ba pare ba mu yóbbu doom ji hôpital nee na après ndaw si ne ko. su fekkee ne it bëgg nga xaalis am na sama beneen xarit nee na xaritam boobu aussi mooy ki mu koy wax mooy businessman bi mu ne ko sama xarit boobu aussi mun naa laa booleeg moom su ma la booleeg moom dina la jox xaalis boo xam ne dinga ci mën a faj sa doom bi nee na ma d'accord ndax boobu sama doom ji maa ngi ko bëgg a faj te yoruma benn dërëm ba pare teg ci nekk boroom kër nee na ci la jëlee sama numéro daal di koy jox xaritam bi nee na bi mu ko joxee xaritam bi xaritam bi daal di may woo ni ma diw moo ñu boole diw nee na ma actuellement ni liggéeyoo te man temps yi dama bëgg a ubbi li nga xam ne moo di benn benn entreprise gardinage bu fekkee dina la arranger pour sécurité bu ko defee ma jox la ko nga gérer ko nee na mu ne ndaw si amul benn problème nee na nag ndaw si ni ko comme dama war a ubbi entreprise boobu su ma sañoon da ngay ñëw ñu gisee ñu toog waxtaan nga mën maa wax entreprise bi nan laay def ba mun la ko jox nga gérer ko ak yan yan la laaj ak yanag yan nee na nag bi ma waxee loolu te maa ngi soxla liggéey nee na man ma daal di dem wutali kër ndaw si nee ndaw soosu nag moom Dakar la dëkk nee na bi ma demee ba këram ñu egg toog di waxtaan bi ma egsee maa ngi fekk moom tamit mu dëkk fu bakkane wax dëgg fa yàlla am garde bu nekk ci suuf kooku sax moo ma annoncé ma dugg nee na bi ma duggee maak moom ñu toog waxtaan ci entreprise bi muy bëgg ubbi pour wàllu sécurité ak ni ma ko bëgg a joxe comme awuma ma liggéey nee na maak moom ñu toog di waxtaan ba mu guddi ma bëgg a ñibbi. nee na ba ma bëggee ñibbi nee ndaw si ne bul ñibbi yow instant bi kay yaa ngi Dakar nga nekk di business toogal rek sama kër gi bari na ay néeg néeg boo dugg mun nga fanaan te man ak gardien bi rek ñoo fi nekk mun nga choisir benn néeg nga daat ci fanaan. nee na mu ne d'accord fii ko guddi na te Dakar parfois yenn guddee yi wóorul mu ne kon na toog jël benn néegu ndaw si mu daat ci fanaan nee na ci noonu nag la ko ndaw si waxee la même chose bi ko euh, ki nekk ci banque bi wax nee na ndaw si tamit daal ne ko yow dégg naa li nga yor mot na trente centimètres en même temps aussi da ngay am quarante minutes ci sa kaw soxna si nee wax dëgg fa yàlla ma waaru ci yàlla lii mooy sama soxna wax na sama secret ak moom wax na ko xaritam xaritam bi tamit jottali na ko beneen xaritam nee na ci noonu ndaw soosu tamit daa di fexe ba daa di may provoqué fekk ma ci benn néeg bi ma abal daa di may provoqué yàlla nattuwaat ma ma daa di sekkaat ak moom nee na ñu may tooñ naan ma xanaa TAB bi moo la def nii mooy piqûre boobu nga xam ne gars yi dañ koy jël bu ñu waree dem armée ma ne ko ca Sénégal neex na nee nag yàlla baax na nee na te li ma ci jaaxal ñoom ñaar ñëpp même chose lañ ma wax même kii tamit bi ma sekkee moom ba pare daf ne ma wax dëgg fa yàlla sa soxna si wax na dëgg li mu wax yëpp dëgg la nee na man nag ma waaru ci yàlla nee na même chose aussi moom tamit mu yëkkatiwaat cent cinquante mille comme kee daa di may jox nee na wax dëgg fa yàlla nag affaire bi jaaxal ma trop ma xam ne nag kon sama soxna wax na sama ni ma yàlla bindee ba tax na ñaari xaritam tey ping-pong nañ ma malgré dama nekk ci situation nee na mbir mi daal ni mu ko gisee mooy soxnaam wax na ni muy sekkee moom ak wax ni ko yàlla bindee nee ba ñaari xaritam yi daal di profito le fait que moom amatul liggéey ñu daal ci profito pour mën di ko fay xaalis mu sekku ko ak ñoom te nee na booba moom tamit soxla na xaalis bi ndax boroom kër la liggéeyatul contrat am jeex na doomam feebar na mu war koo faj nee mu daal ñibbi nee na bi mu ñibbee nag wax dëgg fa yàlla affaire bi jaaxal ko metti na ko mais nag xamul nu muy def te it mënul woon a refuser te mu te doomam nekkoon ci lalu hôpital yi mu waroon leen a faj mais lii lépp soxnaam moo ko teg. nee na mu dëkkee noonu dëkkee noonu nee na en même temps aussi ñaari soxna yépp di ñëw di fréquenter soxnaam maanaam continuer ginnaaw bi mu sekkee ñoom loolu ba pare ñuy ñëw këram di fréquenter soxnaam di waxtaan si. nee na muy toogandoo ñoom ñii ñi xam ne ñaar ñii samay xaritu jabar lañu te kenn ku ci ne ci yow sekk naak yow te ñoom ñaar ñoo ko waxtaanee maanaam kenn ki daal moo ma paas kenn ki ginnaaw bi ma sekkeeg moom nee na nag affaire bi naqari ma ma bëgg koo wax sama soxna mais nag ma ko bëggee wax sama soxna nee na sama benn xarit ne ma bu ko ko wax ndax nag soo ko waxee yéen ñaar njaboot ngeen am ngeen ay doom te ñii aussi ay xaritam lañu ñu ngi ñëw chaque jour di fréquenter sa kër sa sëy mun na cee tas ñoom ñett tamit seen xarito daa di yàqu comme daal sa soxna si sibul action jàpp na ne ay xaritam lañu ba tax na muy toog ak ñoom di waxtaan ak ñoom nee na xarit bi ne ko te leer na mu aussi sa soxna si bam leen koy wax waxewu leen ko dara pour ñoom ñu essayer ko dafa jàpp ne ay xaritam lañu rek moo tax mu wax leen ko far ñoom nag ñu essayer ko bàyyil noonu mu sedd nee na par contre beneen xaritam bi nee na ko est-ce que doo ko wax sa soxna si ñaari xaritam yi bàyyi fréquenter sa kër moo gën nee na nag mu nekkee noonu nee na mujj gi mu ne na bàyyi noonu mu sedd comme soxnaam yëgu ci dara mais nag wax dëgg fa yàlla affaire bi gêné na ko te naqari na ko. nee na mu dëkkee noonu dëkkee noonu ñaari soxna yi di fréquenté këram ba benn jour encore nee na ki nga xam ne mooy liggéeyee ci banque bi te kooku moo ko njëkk fexe ba découvrir le nekk ci moom nee na kooku woowaat ko. nee na bi ko kooku woowaatee ne ko dama laa bëgg a invité man ak yow ñu am fu ñu dem daal di waxtaan. nee na mu accepté nee na bi mu accepté ndaw si ne ko cette fois ci nag dañuy changer feneen maanaam bee passé ñu ngi demoon par exemple vi dëkk bi nga xam ne moo am ay géej ay noppalukaay cette fois ci dañuy demaat beneen dëkk boo xam ne moo am ay hôtel ay noppalukaay maanaam ñoom ñaar ñu changer lieu nee bi ñu changer lieu ñu daal di fay dem nee na bi ñu demee li ko njëkk a yéem ci dem gi nee na dañoo egsi ci ville boobu dem ci hôtel bi nga xam ne fa ko ndaw si yóbbu rek nee na mu fekk fa beneen femme businessman bi nee na ba mu ko fa fekkee affaire bi jaaxal ko nee na mu toog ak ñoom waxtaan ak ñoom tuuti mu ne leen xaar leen ma dem bitig ba dem jëndi cigarette. nee na bi mu demee bitig ba jënd cigarette ba ñëw toog di tux nee na ci la toog di xalaat sixième sens am jox ko waa man lan moo xew fii kii moo invité ne ma naa ñëw fii ñu noppalu ma ñëw fekkaat fi keneen ki ñaar ñi lan la ñu bëgg ak lan la ñuy waajal nee na nag ci la posé ki nga xam ne moo nekk ci banque bi ne ko waa yow dag ne ma naa ñëw fii man ak yow ñu noppalu ñu ñëw fii fekk fi sa xarit bi lan moo ko fi indi wala yéen ñaar da ngeen lan moo leen fi war a dajale nee na xarit bi ne ko man maa ko wax man ak yow dañuy ñëw fii moom na ñëw nee na wax dëgg fa yàlla ma waaru ma jaaxle le fait que ñoom ñaar ñëpp nga xam ne kenn ku ne sekk naa yow ñoom ñaar ñu daal di daje ci même hôtel te ke moo ma waxoon naa ñëw ñu ànd noppalu. nee ci noonu nag lama lama ndaw si ne yow daal war ngaa xam lan moo tax ñu ñaar ñëpp ñu daje fi yow yaa ngi nii amoo liggéey te yor nga soxla yor nga jabar ak i doom te say doom dañuy soxla kenn ki mi ngi nii feebar nga war koo faj suñu sañoon nag man ak sama xarit bi yépp da ngay sekk ak ñun boo sekkee ñun ñu daal di lay fay bu ko defee nga am ci loo téye nee na loolu la ko soxna si wax te nee na en même temps soxna si tamit giwil la moom ak businessman boobu ay ay ñoom ñaar ay copine lañu maanaam ay faram nit faram la entre ñaari jigéen mais en même temps mooy giwil yi nga xam ne dañuy nekk giwil ba pare wëlbatiku parfois di bëgg a sekk ak ay góor nee na nag ndaw si ne ko maag sama xarit bi looloo ñu fi dajale dañoo bëgg ñu ñaar ñëpp nga sekk ak ñun ñu fay la. nee na mu accepté ndax nag wax dëgg fa yàlla moom it soxla na xaalis bi nee na mu sekk ñoom ñaar ñëpp ñu fay ko ku nekk cent cinquante mille muy trois cent mille francs CFA parce que soxla woon na ko wax dëgg fa yàlla. nee na nag léegi dund na loolu ba pare mu daal di ñibbi ginnaaw ba mu sekkee ñoom ñoom ñaar nee na ba mu ñibbee nag cette fois ci affaire bi metti na ko regretté na ko en même temps mi ngi nekk ak jabaram ci biir kër gi mais dafa dem a dem sax ba xool jabaram mënatu ci dara maanaam gis jabaram ak gis butitam yi la yemale ndax nag du question da koo bañ mais ni mu koy trompé ci xaritami looloo ko nakari te mënu koo wax dara mënul sax siggi xool li nga xam ne moo di soxnaam nee na nag benn xaritam bi moom ne woon na ko bu ko wax dara bàyyi ko ci biir nee na beneen xaritam bi aussi ne woon na ko wax ko ko ndax wax dëgg fa yàlla lii rafetul nee na nag lu waral mu indi nettali bi émission nettali parce que nag lii ko dal yëpp jabaram moo ko teg ndax jabaram ci boppam moo yor làmmiñam di wax naan ko nii la mel ba ñaari xaritam yi nga xam ne dañuy fréquenter ci kër ga daal di découvrir nu mu mel ba pare profiter le fait que moom amul liggéey daal di koy woo di ko fay ngir bëgg profiter ci occasion boobu pour am lu ñu bëgg ci moom nee na nag lépp ak jabaram moo ko ko teg ndax moom mënoon naa dund ba dee du sek ak ñaari xaritu jabaram yi mais daal li ko naqari mooy ñaari soxna yi ñu ngi koy ping pong bu kii jëlee ba mun doyal daal di koy paas ka ca des nee na nag lu ko metti la soxnaam moo ko moo ko yóbbee situation yi muy dund looloo tax nag parfois ñuy wax jigéen ñi ñu am sutura ci seen néegu sëy parce que lii yàgg nañ koo dégg soo toogeeg say moroom xamoo ndax seeni jëkkër ñu ngi leen di satisfaire nga toog yow di wonewu naan sama jëkkër mi ngi may satisfaire mi ngi may def lii jigéen dafa gàtt xel xelam lu may xalaat rek mooy découvrir ko parfois sax bëgg laa fenloo moo tax ñuy bëgg a découvrir pour xool li ngay wax dëgg la dëgg la wala du dëgg ndax boo xoolee ñaar ñi kenn ku ci ne ba nga pare da nga ne waa ji sa jabar ji lim doon wax yëpp dëgg la kon bu nekkul woon dëgg it dañ naan diw da doon wax lu ko neex rek te après sax dañ la koy xoolee wala di la ko sabootee moo tax wa dëgg fa yàlla liñ naan néegu sëy sutura la néegu sëy dafa nekk loo xam ne bañ nañ ko ba yaag sa jëkkër sax bala ngeen a wéet guddi gi suuf sedd yéen ñaar kese ngeen nekk seen néeg wax dëgg fa yàlla la fay xew war naa mën a yem seen yéen ñaar seen biir d'habitude nag fii au Sénégal dañoo baaxoo toog ak sa xarit xarit di wax naan sama jëkkër sama jëkkër lii mais daal wax dëgg fa yàlla lu ñu war a moytu la lu ñu war a éviter la lu nit xaritoog yow xaritoog yow am na yoo xam ne sa vie privée la yow yaa ko moom maanaam doomu aadama dafa am loo xam ne moom moo ko moom ku mbokkal ndey ak bàyyi sa xeju ci loo xam ne sa vie la sa yow yow en personne yaa ko moom malheureusement ñun dañuy jaawale yi ñu war a partager ak yu ñu warta partager bien vrai que tooñante du ñàkk entre yéen entre xarit sa jëkkër nii sa jëkkër naa mais mun na yem mun na am ay limite mun ngeen koo yemale ci fii ci fii mais nag kanta di wax sama jëkkër yi gëriyee la nii la mel bu ko defee bu dee dangaa am ay copines yoo xam ne dañoo xaw a jalouse wala copines yoo xam ne ñoom loolu da leen a manqué ci seen biir néegu sëy te gis ngeen kenn ki sax dafa divorcé bu ko defee ñoom it dañuy bëgg a découvrir loolu wala sax benn moment ñu bëgg laa dafa pour bëgg a jël sa place moo tax wu baaxul chaque jour ñu koy wax moo xam bu la yàlla mayee teraanga yenn wu yi baaxul lu la yàlla munti may daal nit da ngay làqatu nit da ngay moytu di wax foo toll di wax loolu nag la olof njaay di wax waxkat dina wax ba làmb ne lii du sama bos te moo ko teg boppam xam nga ne ndaw si wax na tey jii ba ay xaritam ñu ngi koy jàmpaak ginnaaw te xamu ko en même temps continuer di ko fréquenter parce que dis na gémmiñu jëkkër ji pour mu wax ko li nga xam ne moom la xaritam yi di def profité nañu le fait que gis nañu waa ji liggéeyatul ñu profité yor ñoom seeni alal di ko jënd maanaam di ko fay ay cent cinquante mille pour mu sekk ak ñoom ba pare wëlbatiku di ñëw di la fréquenter yow soxnaam lii ngay xamante ne àddina doy na waar am na ñoo xam ne dañ lay def lu ñaaw ba pare rusuñoo ñëw continuer jàkkaarloog yow def comme si defuñu la dara dara dara loolu dafa ñaaw maanaam def sa xarit lu metti ba pare wëlbatiku di fréquenter këram ba pare doo am benn jeune wax dëgg fa yàlla jamono metti na jamono doy na war yàlla ñu yàlla dolli sutura te it yàlla may ñu nu ñu ñawee suñu gémmiñ te xam lu ñu war a nettali ak lu ñu warta nettali ay ca mi ngi noonu waa ji daal lii moo nekk problème am nee na nag nan lay def ba génn ci situation yi parce que nag vraiment sonn na gars yi ñu ngi koy ping pong parfois sax ñu boole ko ñoom ñaar comme niñ ko piégé ba mu fekk keneen ki ci beneen hôtel bi mujj gi ñoom ñaar ñëpp la sekkal ñu fay ko trois cent mille conseil nag la bëgg ak nu muy def rek ba génn situation yi mbokk internet yi ay ca mi ngi noonu ñu leen di jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal Papa Sey moo nekkoon na ci caméra bi di nuyu suñu DG Sey Latir nuy équipe bu technique bi Thiès Info yëpp di félicité faat ma Sey nekk doom ci suñu DG yàlla def na mu am bag bi d'office macha allah ak mention félicitation à faatu Mata Sey kooku sama turandoo la ma ak faatu yëpp ñoo yem macha allah ñu koy ñaanal bac bi yàlla na ko jik yàlla na ko jik yàlla ci diplôme yu bëree bëri topp Sey Sey Sey Latir nan lañ leen di taggee wax dëgg fa yàlla yaru nga tey nga am nga yar nit dina fi ñëw ba dem sax des fois du la gis ci sa ci sa yaroog sa tey kon nag bag bi yàlla na la jik Fatma Seye di la ñaanal bu baax a baax diplôme yu bëri topp ci macha allah bak dofis ak mention kontaan nañ ci yow ay ca mi ngi noonu di leen jaajëfal bu baax a baax di leen joxaat dig daje suba incha allah ci yeneen i nettali d'ici là portez-vous bien et bonne suite de programme sur Thiès Info ñu koy terminer ak suñu kaasu kafe